li ci jub ñu sante ko yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi sàkk ñu maase déglu ñu yëkkate kàddu ci ndigalul sëriñ bi di ko jëmee ci liggéey bi nga xam ne moom la ko Serigne Touba di liggéeyloo te muy liggéey boo xam ne ba sëriñ bi ñëwee jamono ba niñ ko noppee gis xëyam yëpp ci la ko daan xëy ñem yar ñëpp ci la leen daan yar mooy fexe ba doomu aadama ji li ko indi ci àdduna mu matale ko te waajtaayu wépp jëm yowmal